bu jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaaram jërë ngeen jëf mbokk yi ñu taamoo bàyyi xel seen TV rawatina fii ci euh, ci màggaluk soxna Mariama Bousso édition 2019 comme ni ngeen ko xamee nag ci interview yi nga xam ne ñi ngi koy def ci kër kilifa yi ak entretien yi nga xam ne nii ñi ngi koy def ak kilifa yi ngir ñu di ñu gën a fàttali li nga xam ne moom moo di njariñul bis bi waaye itam dañu xamal soxna si waaye itam taxawaay bi nga xam ne moom la xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké euh, taxaw ci euh, fi nga xam ne moom moo di euh, Porokhane nekk ci bopp njaboot yoonu murid yëpp ñuy nag toog ak Serigne Bassirou Kane di représentant xalifa général ca ngin gi neew moom tamit yaroo ci keppaaruk Bassirou euh, laataa ñu dugg ci biir waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu sant sëñ Bass lay nuyu di la ziar. soxna wa alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabi man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ixwata al imani wal irada nuhayikum tahiyatan islamiya qailan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi sant sunu borom bu baax soxna wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla dolli noo fayal sunu sëriñ a Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan ci sunu borom tabarak wa ci bis bi ak borom bis bi mu dolli fee yàggal sunu sëriñ a ni Mouhamadunil Muntaqa guddal aw fanam lool ba naal yi mu naalal sëriñ Touba fas ko ko yéene liggéeyal mu mottali ko na mu ko bëggee te taalube yi ak njabootuk Serigne Touba gépp ànd ko ak moom ñu di leen nuyu di nuyu bokki Sénégal yëpp di nuyu bokki Poroxaan yëpp waaye di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan télévision bi nga xam ne mooy Touba TV di sant ci seen jataay bi bu baax di sant borom kër gi waaye itam di leen sant yéen ñi nga xam ni yéen a yore liggéey bi di ko saytu di ñaan yàlla gën koo jëmee kanam barke Cheikhul Khadim. gis nañ ne màggal gi at mu jot day yokku. waaye rawatina ñaari at yi nga xam ne mun Mountakha ci la nekk Serigne Bassirou waaye nekk tamit Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gis nañ ne kilifa yu bari ñëw nañu fekk ko fi nga xam ne moom moo di Porokhane moom sëñ bi itam teel naa ñëw euh, màggal fi nga xam moo di Porokhane yokkute googu muy yokk ak tey nii mu mel ci dimension bi mu am ci yoonu murid tey naka nga ko gisee. waaw koy jërëjëf soxna wa laaj nga laaj bu am solo euh, loolu moom mën nañ ci jàngate lu baree bari ndax euh, ni ko wolof di waxee yoonu Serigne Touba. wala mbirum Serigne Touba tànki kanam la am waaye du dellu gannaaw mukk ilaa yawmil rawatina li ñuy defal soxna jaara soxna jaara xam nga ko xam nga li mu liggéeyal boromam kooku lépp luñ koy wooteel kanam la jëm rawatina nag doomam ji nga xam ni di ab sëtam di a Cheikh Mouhamadin Mountakha liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ca ba muy tuut tànk ba fii nu toll képp ku ko xam xam nga ni képp ku ko mas a yilif làq na sa ngërëm min la dun Cheikh Moustapha Bachir jàpp ci xalif généraux yi nga xam ne gannaaw sëriñ Moustapha Bachir ñoo fi nekk di am sëriñ Toubaam ñoom ñëpp sëriñ Mountakha làq seen gërëm waaye itam relation bi ko yàlla jox ak këru diine yi te loolu du dara lu mooy jikko yu rafet yi nga xam ni yàlla def na ko ci moom te jikko yi mooy jikkoy alquran rek ni yonent bi sallallahu alayhi wa yore woon jikkoy alquran ndax Aïcha bañ ko laaje ni ko lan mooy jikkoy yonent bi dafa ne ay jikkoom day mooy alxuraan jikkooy alxuraan yooyu nag du dara lu mooy lañ tagge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek te mooy wa innaka la ala xuluqin azim yow day mboolem jikko yu mas a am yu yàlla mas a bind rafetlu ko yow yaa nga ca kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu nga xam ni moom la yonent bi yoroon te itam jàng alxuraan jàngal ñu ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana maanaam lépp loo xam ni yonent bi yor na ko ci jikko yu rafet na ngeen ko ca roy loolee day mooy royaat ci sunu kilifa gu tedd gi fi nekk nekkal fi Serigne Touba nga xam ni daj fees dell jataay bi nag amoon nag relation jullit yëpp ndax jikkoom yu rafet yooyu mu a Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo tax ku mu woo da nga ko wuyu ndax ko am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi am ngërëmul Serigne Touba jullit yëpp danañ la nangul loolu moo tax ñaari at yi nga xam ni sëriñ bi nekk na ko ci jataayu sëriñ Touba yilif Touba waaye yilif Poroxaan ndax ku ne xam na ni Poroxaan sëriñ Touba daf ko rafaatale woon sëriñ Basiiru kon ko waajuram wu jigéen wi sëriñ Basiiru sos fi lu rëy loo xam ne mooy màggal gi bàyyi woon ko ak Cheikh Mouhamadunil Moustapha mu def ci jéego yu rëy tabax fi ko Soxna Jaara tabax fi juma def fi daaray soxna jaara di ci jàngal turandooy soxna jaara yi di lu am solo loo xam ni jullit yëpp war nañ cee ndokkeel sëriñ Moustapha Bachir waaye mu bàyyil fi ndono loolu nag kii nga xam ni mooy rakkam sësoon ci moom rek te wàllu xam-xam rek ñor ko te yaakaar na ñun ñëpp ñu ngi koy dund fan yi ku ne xam na ni xam-xam lépp lu mu mën di doon moo koy jëmale kanam bu nit ñi dee sàkku lu ñu man di sàkku moo xam alal la moo xam ngëm yàlla la la cay jotale nit la cay la koy saxal la koy rafetal mooy xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale moom la fi bàyyi dañuy wax ni euh, Sëriñ Tuubaa sax moo ko wax moo ni lépp ñëpp ñuy tegtale ñeenti xaaj rek lañ waaw addaaluuna ala arbaati aqsaam nee na ñiy tegtale daal di jëmee nit ñi ci yàlla ñeenti xaaj rek lañ mooy am na koo xam ni dalay tegtal àddina nee na nag ki lay tegtal àddina kooku dalay fitnaal rek waaw ki lay tegtal àddina dalay fitnaal rek maa ngi koy wax barki démb ndax fa àddina li tax muy fitna mooy da ko dul jot mukk ci àddina loo daw daw daw daw da nga ak te doo jot àddina ndax moom day wore rek kon Serigne Touba nee na képp ku lay tegtal àddina moom booy ba nga wattu ko te xam ni kooka dalay fitnaal wa man ala siwal ilahi dallaka fa firra minhu fa innahu adallaka loolu la Serigne Touba wax ku lay tegtal lu dul yàlla daal boo yeboo nga daw ko kon benn tegtal katangoog mooy ki lay tegtal àddina kooka nee na dalay fitnaal ba ca des mooy ki tegtal jaamu yalla Serigne Touba nee na kooka day dalay da da dana la sonal waaye dana la jariñ ndax jaamu yàlla kat moo tax ñu binduñu kon coonoo ngi ci waaye njariñ ngi ci ndax da la yóbbu ba aljanna kon boobu it am na solo waaye bi gën a am solo nag mooy ki lay tegtal xam-xam Serigne Touba nee na kooku nag moo lay jariñ njariñ loo xam ni nooflaay lay lay doon budul jeex addina ak àllaaxira kon loolu la ñu Serigne Mountakha woo mooy ku ne xam na ni lii yitteem tey mooy xam-xam ba tax li nga xam ni moom la ñu fi Serigne ba Touba bàyyiloon muy ndono muy jàng. te nga xam ni lépp lu ñu war a jàng war a jëriñ doomu aadama Serigne Touba bind na ko bàyyil nu ko fi ku ne xam na ni loola loola nga xam ne Serigne Touba bàyyil na loolu la Serigne Mountakha bëgg a dundal ba tax mu bëgg a taxawal université boo xam ne ñëpp xam nañ ne Afrique amu fi waaw université bii nga xam ne moom la am yéene woo ci murid yi woo ci taalibe yi woo ci jullit yëpp. loola mooy bëgg naa dundal xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba bàyyi la woon batale woon te ni woon képp ku la ko tegtal nag kooka mooy ki nga xam ni moo la bëgg a jëriñ ba ca des nag mooy ki tegtal yàlla mooy ñeenteel bi nee na kooka nag moom moo la noppal ndax mooy li nga xam ni moom la ñëpp wut ndax wut yàlla rek yoon wii ñuy sóobu muy yoonu murit wut yàllaa ko tax a jóg nit ñi ñoo woyefal seen bopp ñoo yembax ñoo yembare ba waaye képp ku sukk jébbulu la waroon mooy fexe yegg ci yàlla te kat wa baabullaahi lam yakku murtaja buntu bi yàlla ubbewul képp ku fëgg yàlla ubbil la nit ñi nag ñoo fugg fëggatul jëmatuñu ci yàlla képp kuy jébbuloo intérêt bu int bu ma yeboo ne intérêt même bu la àjjana rek taxee jébbulu sax intérêt la waaye nit ba muy sóobu jëm ci yoonu yàlla asuluuk la waroon a tax mooy yegg ci sa borom ba man faa yeggale loolu nag moo tax Serigne Touba képp ku la tegtal yàlla rek kooka yeggale na loolu nag moom la ñu Serigne Mountakha woo looloo tax nag loolu mu woote jikko yooyu mu yor mbaax gi yaatu gi yaatal gi liggéeyal lislaam moo tax képp ku mu woo mu wuyu ko looloo tax nga gis yokkute gii nga gis ci ñaari at yi ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla jëme kanam ba lépp fu mu fépp fu ci bëgg a yegg mu yegg fa ki tax ñuy def màggal gi muy soxna jaara yoroon na ci lu bëree bëree bëri sànq ma ñëw ci yoon yi maa ngi koy waxtaan ak ñi ma àndaloon ci oto bi ma leen ne soxna jaara ñu bëri dañoo jàpp ne fii ci poroxaan dafay yàgg te su ma dégloo ci waxtaankat yi ak euh, ci taarix dañ ne juróom benn weer rek la fi am te liggéey fi liggéey bu rëy bi mu fi liggéey jox du soxna Awa noonu nga ko waxee rek la soxna si euh, bu ba yeboo ni boo gisee euh, boo gisee liggéeyam rëy mooy at yi dafa tuuti te mu liggéey fi liggéey boo xam ni liggéeyu téeméeri at ak juróom fukk la soxna jaara te dara mooy li nga wax rek mooy nag li ma la wax mooy ba mu waree jàng dafa jàng bañ ko waree yar da ko dañ koo yar ña jur di nit ñu baax moo tax cosaan dafa am solo moo tax nit boo ko bëggee da nga koy wutal ndey ju baax da nga koy wutal waajur yu baax xam nga foofu la yar tàmbalee yara ngi tàmbalee ci say doom nga wutal leen ndëgër laay ndëgër laay mooy nga wutal leen ndey ju baax wutal leen ay waajur yu baax yoo xam ne danañu ko yar soxna si looloo ko dimb ko dimbali ku mel ni soxna Asta Walo ku mu yar jàngal la ba nga mokkal alquran lépp luy xam-xam nga xam ko mu yar la ci jikko yi nga xam ni ne sayyidatuna Maryama mi alquran tagg yóbbulul soxna jaara bu so dara lépp lu ñu taggee soxna soxna bu so soxna Mariama mi nga xam ne moo yaay Seydutuna Seyduna Isa boo demee ci soxna si danga fa fekk lu ko ëpp ci mbaax ci bëgg yàlla ndax moom kat du woon jigéen joo xam ne day bàyyi góor ñeeg jaamu yàlla lépp lu góor di defal yàlla soxna jaara defal na ko yàlla waaw ndax aabida la woon saaliha la woon buñ nee nit yiw na te sëriñ Basiiru bi mu koy melal daf ni soxna jaara imraatun saaliha jigéen ju yiw la woon yiw nag cila la nekk mooy ku baax lay doon ku bëgg yàlla lay doon ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeeti ibadaat yëpp soxna si da ko daan def soxna si koori gàtt nga sëriñ sëriñ Basiru nee na la woon maanaam taxaw katu julli buñ nee nit jullikat la nag du caaginu juróomi julli yi juróomi julli yi farata la yàlla teg ko ci sunu kaw loolu far force la waaye buñ nee nit jullikat la mooy koo xam ni nit ñi dañuy tudd tëdd nga fab sa der teg ko ci kanam fas yéene naafiyaal naafilaal sa borom loolu la soxna si daan def sëriñ Basiiru ni saa'ima la woon kat la woon woorkat it buñ ko dee wax du weer du weeru koor weeru koor farata la jullit yëpp la war waaye soxna si buñ woor kat la mooy weeru mboolem bis yi nga xam ni gis nga sëriñ Touba tudd ko ci Masaalikal Jinaan ñu war koo woor bis yooyu yëpp soxna si da ko daan woor buñ nee nit day joxe joxe kat la du caagéenu joxe asaka asaka farata la képp ku am nisaab da nga ko war a génne mais moom soxna si ko tabe la woon ba néegam këram fa la taalibey maam Mor Anta Sali yi daan def seen moo moo doon seen trésor ku ci soxla cere fa nga daan dem looloo amoon ku ci soxla looy naan fa nga daan dem soow ma mu daan dajale di ko jox sox sëriñ bi bu desee dongo yi la ko daan jox maanaam léppam daal léppam ak tab la woon léppam ak jaamu yàlla la woon loolu moo may soxna si lii mu am waxuma la nag digganteem ak so Maam Mor Anta loolu moom am na luñ ciy nettali loo xam ne jëratul wax ci topp gum ko topp néewaa na nga gisati jigéen joo xam ni yaakaar nga ni dana jege soxna jaara ci ni mu daan toppee borom këram lu ne defal na ko Maam Mor Anta moom daawul def daawul xaar ba soxna Maam Mor Anta digal ko waxuma la ndigali Maam Mor Anta waaye lépp lu mu yaakaar ni bu ko defalee Maam Mor Anta ci njaboot gi waxuma la Maam Mor ci boppam de waaye njaboot gi muy taalu yi muy jur gi mu yor lépp loo xam ne sëriñ bi yilif na ko rek soxna jaara defoon na loola mu di ab sangam mu di ci wut ngërëmul Maam Mor Anta Sali wo bal gannaaw ba mu làqee na ngërëmul boromam ndax diggante sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa sëriñ ak sa digganteeg sa borom kër lenn lu nekk kenn ku nekk dafa am xusuusiya maanaam jagle goo xam ni dakoo am ci yow moom nag àq yooyu yëpp mooy àq yi di war digganteem mag borom këram matal na ko sëkk àq yi war digganteem ak boromam matal na ko sëkk àq yi war digganteem ak dëkkandoom yi nga xam ne ñi ko gënoon a jege la ñi ñuy tudde ay wujj te moom mu defoon leen ay sang matal na ko sëkk waaye àq yi waroon diggante mag dëkkandoo yi nga xam ni ñoom la dëkkal ci kër gi muy fii bi mu nekkee fii mooy bi mu nekkee Xuru Mbàkke ni nga ko waxee fii yàggu fi xamoo ni lu baree bari ñi ngi koy nettali naan xaan du poroxaan xuru mbàkke la ko liggéeyee i sàkket woowu ngay dégg ak yu baree bari xuru mbàkke la woon foofu la liggéeyee ba xaw a dee door a ñëw fii yàlla dogal nag fii la mottulee ab liggéeyam ba wàcc fi dégg fi jërëjëf delluwaat ci mam nekk nafsun radiya mutmainna yal na nu ko yàlla dollee fayal moom soxna si te taas ci barke barke Serigne Touba. jërëjëf sëñ bi yan kàddu ngay tëjee. waaw sant suñu borom rek di la sant bu baax nag waaye di sant sama bokk yi ma àndal yëpp. jóge ngin gi new waaye di sant nag ki nga xam ni tey moom la ñu toog ci këram muy Serigne Mountakha Kane yàlla dogal daayira yi nga xam ni ñooy jóge ci tund gay ngi new yëpp waaye waxuma la gee ngi new yi jóge bu ma yemoon ni Sénégal gépp fi daje gis nga bokki Casamance ngi nii ñoo fi toog ñëpp ñi nga xam ne ñëw ñi ngi fi ñëw moom yàlla dimbali na ko ba may ko xol bu yaatu lépp lu ko lu lu war ci bis bi dana ko def bernde yi fa tabaarakallah waaye bu doon bernde rek waaye nag ya yaatal gi muy yaatal nit ñi génn néeg yi lépp lu man mu def ko loolu ñu ngi koy sant te di ko ñaanal mu gën koo man waaye ñi nga xam ni ñëw nañ yëpp itam di fi màggal si ñi ngi ñaan yal nañ fi del si déwén te déwén dàqal ñu ren yéen itam ñi ngi leen di sant soxnaa wa ñi ngi lay sant bu baax di la ñaanal di ñaanal sa caméraman bi nga àndal waaye di ñaanal muy Serigne Booj di ñaanal itam télévision bi yàlla yokk ko eh, yokk borom ndax yéen liggéey Serigne Touba rek ngeen di liggéeyal taalibe yëpp yéen la ñuy seetaan ndax da ngeen di jàngale di yar di wane Serigne bi te koy wane Serigne bi nag mooy yaa ngi wane mbaax rek yàlla na yàlla dimbali nu dolli nu sutura ban fi na gën dewen déwén asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maam bu sa jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta maam maaram